ngeen jàkkaarloo moom mooy na Soxna Awa bu Serigne Abdou Karim Mbacké moom sox sama aw moom Serigne Abdou Karim Mbacké sël moom moom rek lay wax. Euh, Jean mi may dégg. Mm-hmm. dama am question boo xam dama kaa bëgg a poser. lu mm-hmm. euh, da ngay suivre làmb. waaw bu baax. dafa am combat yoo xam dafa war a taxaw. to mm-hmm. incha allahu rabbi. dëgg la bokk na ci. ginnaaw suba incha allahu rabi ak ki nga xam ne moom mooy bombardier. Mhm. franc bu parcelle ak bombardier bu muur. Mhm. war daje. Mhm. waaye am na combat boo xam ne taxaw na muy Siteu ak Modou Lo roi des arènes bu Parcelles ak ban gis-gis ak Sa Thiès Eumeu Sène. dëgg la Babel nee naa la man suñu waa këram may tënk waaye làmb ku ma kii mooy daan koo koy daan mm. barki Ahmadul Xadim. ak noddu bi yàlla bu ma raw man làmb ku ma ni kii mooy daan koo koy daan suñu kër ak may dégg su ma bëggee wax sax wala def live ne di daan dañ may tënk Siteu Papa Sow maa ko waxoon Balla Gaye maa ko génnee la woon saraxu ñàmbi bi maa ngi woon géejawaay notaire maa ko waxoon mu def ko daan ñi ànd ak Balla gay ñu may dégg te kenn caméra waruma dara waruma dañ may woo rek man leen def leen sarax bi rek doxal combat yii di ñëw. combat Siteu ma wax la ci lu dul deñ dina mitti dina tàng waaye dina gaaw lool kii daan nag dama di xale du ma ni la diwla waaye boroom màndarga kilifa bi nañ ko déglu ci loolu borom mandarga kilifa bi ndax dama ni woon sax duma wax ci làmb dëkk bi daa toj nit du def ba pare nga gaaw a kar làmbam waaye làmb lu ma la ci wax lii kaamil la du deñ waaw. Euh, Franc Bombardier. Mhm. allah. premier. le premier la. Mhm. Franc Bombardier Franc na def ndànk sama rakk jooju na def ndànk na def ndànk lool te ngeen séntu ci kat appe ci combat boobu ci combat boobu. Mhm, dina gaaw lool. kat appe dina gaaw lool. waaw dina gaaw lool nag. Sa Thiès Eumeu ce que dama may boobu ma noppi waale ko rek. ñu bàyyi ba ñëwaat. ba ngeen ñëwaat rek. ñu si loolu. waaw. boo ñëwaatee ma wax la ci lu leer. waaw ñu ñëw si li nga xamante ni moom mooy combat Papa Boy Djiné bi nga xam ne am na barki Demba Ndiaye. Mhm. ñu dégg si ab euh, benn euh, influenceur boo xam ne wax na si moom euh, ay kaddu yoo xamante ni bii nii dootoo dootoo bëree ba daan donc mu nekk loo xamante ni bii nii métti na xam ne moom mooy soxnaam. te lan ngay wax ki nga xam ne moom mooy Papa Boy Djiné xam ne ah gën waaw Papa Boy Djiné xam nga at bi coon sekk gaañu xam nga ko coon sekk at bim gaañu xam nga ko. ci at boobu bu dee jabaram mi ngi may dégg maay seetkat bi ko woowoon ni ko dama laa gént nga nekk ci camion yow waali papa booy jinne waal di way ngay fecc ndey gay bu dee mi ngi may dégg maa ko ko waxoon période boobu mi ngi ma fekk village waalo mu ne ma dinaa def ñetti boolu laax gàllankoor yi ba ma koy gis amul ku ko saña wax man bi ma koy gis amul ku ko sañ a wax gàllankoor bu ne rek damay tëdd ñu wan ma rek ma xëy woo borom mais papa booy jinne lii ko dal dafa metti waaye lépp yàlla la de kuy daan ak kudul daan lépp yàlla la ki ko ko teg na ko teggi te mu fexe rek mu jug ci boppam dadi ndaw pour mu bàyyi làmb dëggaluma ko ko man maa la ko wax. si kër li. dëgg la euh, Awa li nga xamante ni moom lañu ñu naan euh, actualité réew mi ak ni muy doxee waaye réew mi ak fi mu toll. Euh, jafe-jafe yi nekk ci réew mi ñu ko doon jooy di ko doon jooy ba yàlla dogalim dogal tey indi ñu président bu bees boobu ba léegi mu mel ni dégguñu kenn koo xamante ne àdduna jëm ci li nga xam ne moom mooy réew mi léegi réew mi ak ni mu doon doxee ak actuellement suñu président yu bees yi euh, yan kàddu nga am yoo xamante ne moom ngay dénkaane ndax suñu jeunes yi nga xamante ni xoolal nañ ancien président ba ni ko doyatoo ñu bëggatuñ la jëlee nañ ko fi indi ne ban ñaax wala ban leçon nga mën leen a jox pour que ñu am patience li nga xamante ne moom mooy seen i njiitum réew waa xam nga Sénégal daa doon dëkk boo xamante ni dañoo yàkkamti te oto lum xat-xat joxal ma sama yaay xaj na ci nit doo sëy si tey togg suba nduggi dem marché xam kër yëpp mënta ne jomaay mi ngi soog a ñëw dëkk bi li fi yàqu dafa bari te nee naa leen président bi ñëw réew mi dina neex soxlaw ma koo xam xaw ma ko dégg laa ci am ak rawaan li mu ma wan réew mi day neex lool góor ñi nag ku ci yàkkamti takkal daal takk ndigg dugg ci terrain yi def ko comme xale bi taxaw sa lépp day baax waaye boo bëggee def manger bois ak wax waxi réew mi du dox waaye réew mi fii wëg ci kanam day neex lool day neex lool lool lool sax ba romb neex Uhuh. aji comme ni nga waxee rek soxna Awa euh, liy duuf si nag bi xajul si cin bi. Uhuh. Euh, tey jii yaakaar naa liñ bëgg a ak yow yëpp amaana mënuñu fee jógee waaye mën nañ koo dënk ba beneen yoon incha allahu rabbi si kàttanu yàlla euh, dañu lay bàyyi rek nga présenté waat ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan képp koo xam ne soxla na la fan la la mën a fekk ndax tamit très important ngay joxe fi nga xamante ne bii ni fa nga nekk muy base bi nga nekk ñu la fi fekk waaye di gën a insister tamit ci loolu ndax dëkk bi daa toj gën a di wër sa léeg nga woo nit mu ñu la man la diw fekk du diw mhm. bëri na fi chaque jour sa mbokk yi di informé lu mel noonu waaye léeg-léeg nga déggante ni ne man de am na kuy woote nee nañ man la diw fekk nekkul diw man nga jot jotoo ma c'est très important ñi nga xam ne ñoom ñu lay seetaan fan lañ la war a fekk waaye numéro bi nga xamante ni moom mooy marche tout le temps moom mooy sa numéro ci lañ la mën a jotee waaw man nee naa maa ngi apix croisement apix ku fa ñëw boo taxawee laajte soxnaa wa dañ naan la këram a ngi nële ku ñu woo tamit ci 77 860 38 68 di ñu jot 77 619 02 33 digg ñu jot waaye ñu ci bari man loolu dañ ma koy kalaame da ngay gis kuy toog ne ni man la élément Baye Karim wala ñuy live nga dugal sa numéro le temps que ñu koy dindi nit ñi dañu lay woo nga ni man la élément Baye Karim nit damay woo ñëw naa sa kër gisuma la barki démb dal na ma ci live nit ni ma ñëw naa gis gis naa la kër diw te du man kon ñi koy def nañu ko bàyyi te xam ni jéem bari bokkul ñun lii ñuy def nii dañu ko maîtriser mën ko bëgg succès taxul ñu def ko bëgg taxul ñu def ko bëgg ñu xam ñu taxul ñu def ko yàlla lañu àndal ak sëñ Fallou sama waa ji Fallou Awa bu mi ci kaddu gi bàyyal Cheikhul Abdul Karim bàyyi sëñ aboo bàyyi sëñ Baara Falilou ñun kooku la ñu àndal guyu sëñ Fallou lañ ku ñëw apix dajeeg soxnaa wa dootoo ko réccu nee naa ne ci réew mi uqa maa ko fi wax wàccaale man la maa lay wax ba nga doyal man la wàccaale ko tur baa ngi lay nuyu nga dégg uqa benn setkat la muy man waaye nag ñiy def loolu jëmmi yàlla arrêté leen arrêté leen parce que wax jaa ngi bëgg a bëri tamit. Euh, ñi lay seetaan euh, baaxee nañ dañoo da ngay baaxee di maye ay secret dangaa baax ba àgg ca lool ñi lay seetaan yéen secret nga leen mën a baaxee yoo xamante ni bii nii mën naa sax bañ a yaatu parfois nga taf kot waaye du ñàkk nga am loo xam ne da leen ko baaxee ñi nga xam ne ñoo lay seetaan nekk say xarit say soppe ak say am di jàmm ak ñi nga xam ne saa yoo génnee wax ñu ne gongo. Mhm. ayca damay baaxee ñu ci bari xale góor yi dañu may woo naan ma soxnaa woo dimbali ñu parce que par des fois joxe bi loxo yëpp mënuñoo tàlleendoo ci wàllum kayit yi dañ ciy sonn ma leen xamal ni leen ku am problème mu kayit demal jënd jaxatu kilo boole ko kayitu tabax libre nga wax ci sa soxla joxe loolu maa ko maye secret la. bu dee ci jigéen ñi ñi nga xamante ni sëy bi daa naqari lool lool lool nobbu efficace bi nag duma ko wax ndax kot laa ciy def mais li gën a gaaw jëla sa mos sa tayukaayu kër xoot ci sango ci ñetti yoon sa jëkkër sango ñetti yoon. nga def ci ñam bi juboo force la juboo force la xale jigéen ñi bëgg a am jëkkër dàll ñetti fan rek daal di saraxe jàkka nga dégg ay xayri loolu maa ko wax. dàll koy jënd danga koy jënd sol ko ñetti fan ci kër gi nga dëkk. solal ñetti fan yóbbu jàkk joxe dangay dégg ay xayri force jota sangu jota dem ci sëriñ naxe bi daa bari. kookooy soxna aw bu suñu Abdou Karim Mbacke moom lañ ñëwoon seet si tey comme ni leen ko waxee luy dugg si nag bi xajul si kin bi mhm. waaye nag tubaarkàlla dañ koy dog ba beneen yoon ndax lu neex du doy waaye yaakaar naa lépp loo xamante ni indil nañ leen ko déglu ngeen ko te amaana ngeen ko déggee leer na naañ ah, ngi leen di béggee di leen kontaane bu baax a baax yéen nga xam ne ñuy teewlu ak di ñu bàyyi xel ah, saa su nekk ni ñu koy waxee seen yitte suñu yitte waaye seen bëgg-bëgg mooy suñuy bëgg-bëgg waaye kenn ki la mel ni la si sista Babel l'école bi ko weddi yàlla désactivé la kon Abana Gassi di leen jaaf jëfal seen beneen numéro incha allah rabi waaye du ma sama réalisateur bi nga xam ne moom laa àndal ceer na mu baax mi tubaarkàlla saa yoo génne kër yàlla sa jàmm yàgg kon abaa naka si ba beneen yoon incha allahu rabbi jërë ngeen jëf ba beneen yoon